asalaamaaleykum waa axlu élevage ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp man la Samba Sonko géré bergerie Albary nekk sa yara en face garde Hann bi bon Ndiaga xam nga ñun ay débutant nañ si élevage loolu moo tax euh, ba gars di waxtaan pour dugg si élevage dañaa jël choix boobu quoi jël ay xar yoo xamante ne maanaam dañuy màgg ak ñoom maanaam boo màggee ak ñoom lu ñu jur di xam xar yi lan mooy seen fort boobaa boo xamee xar lan mooy seen fort bu nekkee xar bu góor la di nga ko compenser si ay xar yu jigéen bu nekkee xar jigéen la di nga ko compenser si mâle bi loolu moo tax ñu def choix boobu ndax élevage complémentarité ndax mâle bi day indi xale ku jigéen ki indi lool moo tax ñu def choix boobu. kii démb la am 3 mois kii mooy mu ngi mu ngi tudd Jéego waaw Jéego nekk doomu Asalfo Asalfo di doomu Picasso Jéego na yaa nekk doomu Biddew bu Faap kii daa am ñaari yoon Saalum am ñaari yoon Magistrat. ndax yaa ngi doomu Omaro la Omaro nekk doomu bâtonnier mais Omaro moom yaayam doomu national la ak Boussa Bali kon foofu am na fa am na fa Saalum am fa magistrat si côté Papa ji asal foo doomu Picasso la yaa ngi nekk doomu Biddewu Faap foofu tamit am na fa Saalum am fa magistrat nekk na jeune mâle boo xamante ne wax dëgg fa yàlla am nañ si am nañ si yaakaar bu baax a baax. am nañ fa yeneen jeune mal euh, am nañ fa comme ku nekk nii si baas bi. daa ñëwoon après am benn gàllankoor quoi mu mujj ko delloo moom doomu Dardas la yaay gi nekk doomu mel Melax kooku tamit daa am ñaari yoon Saalum su moom nekk na jeune man boo xamante ne dëgg fa yàlla li mu taawlu moom dal na xel torop torop sax non macha allah gàcce ngaalaam rek nañuy wax gars parce que exposition bi faaru jaar na yoon ndax tey ku fi dugg di nga kontaan ndax am na ñoo xamante ne xamuñ ñu woon ni ay bet yu mel ni ñu ngi fii si Sénégal te lu gën a neex maanaam boo duggee fii nga gis laadu bi da nga xam ne lii c'est purement sénégalais contrairement ak boo demee feneen da ngay gis ay races yoo xamante ne nekkul Sénégal kon nag gàcce ngaa laa ma quoi. ah présenté la tëng yi boo xoolee kii kii mu ngi doog a am huit mois ki papa ji doomu Siré Anta la Siré Anta bu Siré Jakate yaay ji nag dañaa jël euh, benn doomu benn kooku sët la si màggal ak salaam. ñu jox ko benn maal bu ñu naan Eau Royal Eau Royal doomu amitié la yaa ngi nekk amitié Eau Royal doomu amitié la nekk doomu doomu Sibéeru yaa ngi nekk doomu Gelewaar mu jur jigéen léegi ku jigéen kooku nag nañ teg si doomu Sidi Anta kii judd lu ma gën a neex si kii papam Cheikh la yaayam Cheikh la moom mu nekk triplé loolu moo ma gën a neex si xar bi waaw kay day ñëwaat. te huit mois la am nii nekk na xar bu ñu am yaakaar ñu ngi ko tuddee kóllëre waaw suñ benn sam waay moo ñu ko jox quoi mu def si xéewal bu bëri loolu moo tax ñu tuddee ko kóllëre ndax lien bu dox si diggante bi. Mhm. lépp teranga la wax dëgg fa yàlla. alhamdulillah parce que boo xoolee tey depuis élevage depuis foire bi mu commencé nit ñu fi dugg si ñëpp xaraleen ñor xaraleen fi indi te ñëpp dañuy waxtaan jàmm te foo ñu fekk ñu toog xar nañu waxtaan comme ñun ñii yoo

di ñaanal tamit euh, suñu président Fadilou Keita fi mu nekk yàlla na ko fa yàlla génnee ndax wax dëgg fa nekk na nit koo xamante ne tey soxla woon nañ ko fii macha allah di ñaanal ñëpp jàmm. ah waaw ñu ngi ñaanal nag suñu directeur nekk na nit koo xamante ni nit ku baax la ku woyof la yàlla may ko gudd fan ak lépp lu muy yóotu si élevage suñu borom defal ko ko mu gudd fan am wér gu yaram moom ak famille am ak njabootam. yow tamit dina ñaanal gudd fan ak wér gu yaram ndax nekk nga nit ku disponible fu ñu woowee nga wuyu suñu non fii moom yaa ma gën a xam sa kër la